alhamdulilahi rabbil alamin wala udwana illa ala zalimin wasalaatu wasalaam ala ashrafi almursalin sayiduna muhammadin almakin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen mbokk Maodo Abdoulaye Mbacke moo ñëwaat ak yéen di yeggali waxtaan woo xam ne tàmbali woon nañ ko mu jëm ci yoonu xam-xam ginnaaw bi ñu leen nuyoo ziyaar leen di ñaan kàddu gi fekk ñëpp ci jàmm ñu ngi sof sunu waxtaan tey ci waxtaan wi jiitu woon eh, ñu jëme ko ci xam-xam tomb bi njëkk bi waxtaane woon nañ ko mu ngi jëm ci yoonu sàkku xam beneen bi ci toppoon waxtaane nañ ko moom it mu ngi jëm ci dayo bi nga xam ne xam-xam am na ko ci lislaam eh, ñu jële sukkandiku woon ci alxuraan ak sunna ak waxi mag ñu baax ñi tey nag ñu bëgg a waxtaanee xeeti xam-xam yi euh, bu nu waxee loolu nag jubluwuñ ci matale xam-xam yépp ndax loolu lu yaatoo yaatu la euh, koo xam ne ñaari waxtaan yu njëkk yi raw na la kon mën ngaa dellu ci YouTube bi gëstu ñaari thèmes yooyu muy yoonu sàkku xam-xam ak dayob xam-xam wala njariñi xam-xam defe naa am na mbokkum taalibe moo xam ne day jël wax ji incha allah di ko dugal ci YouTube bi ngir ñu mën cee gën a jariñu eh, waxtaan wi waxtaan yii nag mbokki taalibe ñoo ko sàkk woon ñu yaatal ko di ko dugal ci média yi eh, ñu tàmbali woon di waxtaan ak ñoom ci niveau boo xam ni ñëpp danañ ko mën a eh, dégg dégg déglu jariñu ci waxtaan wi ñu tàmbalee nag ci wàllu xam-xam moom dafa xaw a xaw a euh, jafe tuuti ci ñenn ñi ndax defe naa ne ku xaw a amum njàng tuuti moo koy gën a mën a teewlu waaye nag danañ fexe ba ba ñëpp ku ci nekk rek man cee jël dara incha allahu taala euh, ñu bëgg a tàmbalee tey kon ci euh, poñu ñetteel bi muy xeeti xam-xam yi loolu nag pour ñu mën cee waxtaan dañ koy xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi mooy fexe ba xaaj xam-xam ci Euh, ay ci ñaari façon ndax xeet yi dafa bëri niñ koy tàqalee it ci fañ koy teg day xaw a wuute kon xeet bu njëkk bi maanaam ci xaaj bu njëkk bi maa ngi koy xaaj ci ñaari xaaj mooy euh, xam-xamu diine ak xam ak xam-xamu àdduna comme ni ma ko waxee xam-xam dafa bari bari boo xam ne li ci doomu aadama xam lu tuuti la kon nag buñ ne dañ ciy waxtaan lañ ca jublu mooy lañ xam ndax bari na ci xam-xam yu am yoo xam ne xamuñu ko ndax xam-xam adduna yëpp yëpp boo leen dajale woon ka njëkk ca mu ka njëkk ca ca ca ca nit ña muy mu yonent yàlla aadama ba ci ki mujj boo dajale woon lépp seen xam-xam ba keroog àdduna yi tukki yàlla dafa wax ci alxuraan ne wa ma utiitum min al ilmi illa qalil lu tuutee tuuti lañ leen jox ñu ak jinne boo dajale woon seen xam-xam lu tuuti la kon ci ci xam-xamu suñ borom te lépp xam-xam yépp ci moom la jóge kon eh, xaaj bu njëkk bi ñu bëgg a waxtaane mooy xam-xamu diine eh, ak xam-xamu àdduna ma ne kon mënees naa xaaj xam-xam ci ñaari fànn fànn bu njëkk bi mooy li ñuy tuddee xam-xamu diine nga xam ne diine ko tax a jóg ak xam-xamu àdduna xam-xamu diine nag buñ ko waxee liñ ci jublu mooy xam-xam boo xam ne dalay xamal yàlla mi la bind xamal la it li nga xam ne moom ki la bind li mu bëgg ci yow li nga xam ne moom la bëgg ci yow ci pas-pas muy li nga war a gëm ak ci ni nga ko war a toppe ak waaye ak ci jikko tamit ni nga war a jikkoo waaye nag ak tamit sa jëflante ak ñeneen ñi nga nekkal ci kaw suuf euh, loolu lañ ci jublu ci xam-xamu diine ndax dalay xamal yàlla xamal la sa warteef sa digganteeg sa boroom ak sa digganteeg sa moroom loolu nag fiñ koy sukkandikoo mu war faa jóge mooy ci alxuraan ak ci sunna euh, xam-xam bii nag muy xam-xamu diine am na ci wàll goo xam ne dafa nekk farata ci jëmm ju nekk am na ci loo xam ne kenn mënu koo defal kenn ku ci nekk danga ko war a sàkkul sa bopp ñu dimbali la ci ba nga man ko dafa nekk farata loolu li koy tegtale ci alxuraan waxoon nañ ko ca tàmbali ba ca ñaari waxtaan yi jiitu woon waaye mën nañ cee waxtaanaat tuuti mën nañ cee jëlaat ñetti euh, cëslaay ci alxuraan bi ci njëkk mooy fi yàlla di wax ci suratul alaq muy ci saaru alaq di euh, lumbu deret bi nga xam ne moom la yàlla tuddee téere boobu euh, mooy saar moom la tuddee saar boobu di wax ci mbindum doomu aadama da cay wax ne iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam yaalam juróomi aaya yooyu moo njëkk wàcc ci alxuraan nee nañ kon bu ñu xoolee li njëkk a wàcc day soññ nit ñi ci ñu jàng xam te lan lañ war a xam mooy dafa leer nàññ ndax aaya bi da ko wax iqra bismi rabbik jàngal ci sa turu borom loolu liñ ci mën a déggee mooy njàng ndeke la ca njëkk mooy nga jéem a xam xam lu euh, yàlla mi la bind te loolu yaa ngi ko mën a jaar ci ñi yàlla yónni di wax ak ñoom ñuy wax ak nit ñi te mu wàcce ci ay téere kon jàng diine liñ ci jublu mooy xam yàlla mi la bind euh, xamit lim bëgg ci yow euh, loolu kon aaya boobu euh, wala aaya yooyu day tekki ne faratala ci nit ki ngir mu jàng mu tàmbalee jàng ngir xam diineem beneen bi mooy fi yàlla di waxee faalam annahu laa la illa allah wastaghfir li zanbik ay boobu muy wax jiital faalam xamal nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi bu jëm ci yonent bi sallallahu waaye tamit jëm ci tamit koo mbooleem koo xam ne yónni nañ ko ci moom te yàlla dafa yónni yonent bi sallallahu alayhi mu nekk mujjug yonent mu yónni ko ci àdduna bi yëpp wa ma arsalna laka illa kaafatan linnaasi bashiran wa naziran kon ñun dañ ciy dugg ci wax jooju muy ne ko xamal ne amul benn buur bu dul yàlla comme baatu baatu bi laa ilaha illallah moom moo njëkk ci xam yi ndax faw nga xam ne amul benn buur bu dul yàlla loolu mooy bañ nañ ko ba nit ki buy dugg ci lislaam liñ koy njëkk a waxloo mooy la baatu bi laa ilaha illallah kon baatu bi laa ilaha illallah lu ñuy wax dong yam ca waaye lu ñuy xam la lu ñuy jàngale it ndax boo nangulee ne yàlla amul benn buur bu dul moom nangu da nangu koo topp di jëfe ay ndigalam di bàyyi ay tereem te loolu ngir nga xam ko faaw kon nga nangoo jàng te loolu kon xam-xam la ndax looy jàng di ko xam lu nekk xam-xam la beneen bi mooy ñu jël ci xadis yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne wax na ne talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sàkku xam-xam lu war la ci euh, jullit bu góor ak jullit bu jigéen Euh, kon euh, xeeti xam-xam yépp bu mu ci mën a doon ci xam-xamu diine yi ñaari balluwaay ci lay tege mooy alquran ak ci sunna alquran mooy téereb yàlla bi nga xam ne moom la yàlla wàcce ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ko ay ndigal ak i tere akum njàngale mu rëy ci lay jariñ àdduna ak àllaaxira nekk ci ci ngir nit ñi yenent bi sallallahu alayhi wa jottali ko ñam ko jot li it ñu jël ko jot liwaat ko ba mu yegsi ci ñun ñu bind ko mokkal ko it kon loolu téere bu leer la euh, mu mat sëkk it ñu bind ko ci làkku arab beneen bi mooy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay waxam ak i jëfam ak i digleem ak i tereem loo xam ne bokkul ak alxuraan tam am ci ndigalu suñu borom subhanahu wa taala loolu it dañ koo dajale ba mu mat ñu bind ko ñu xam ko segg ko it ndax am na xam-xam bi nga xam ne benn façon xam-xam boo xam ne danañ ci ñëw moom mooy saytu wàll googu kon ñaar yooyu muy téereb yàlla bi ak xadiis yi yenent bi sallallahu alayhi muy ay waxam ak yi jëfam lool ñaar yooyu mooy delluwaay yi nga xam ne mooy delluwaay cosaan yi yi nga xam ne moom ku bëgg a xam diine ci ñaar yooyu ngay ci ngay ci ngay ci ngay tàmbalee leneen lu mu mën a doon ci ñaar yooyu lay sukkandiku bu ñu xoolee ci li ñu tuddee masadiru tashri' al islami da nga ciy dégg ñaar yooyu muy cosaan yi ñuy dellu ngir xam euh, sharia wala ngir xam lislaam dañ ciy jiital alxuraan ak sunna li ñu tuddee al ijma muy daj boroom xam yi seen seen wax yépp dajaloo ci lenn loolu it bu fekkee dajaloo na ci lenn lu ñu koy tuddee ijma loolu da ciy bokk ak xiyaas mooy nattale jël lenn lu am tegtal boole kook leneen lu am lu amul tegtal bu fekkee ne ñoo bokk lu ñuy wax wala bokk tolluwaay euh, ñu ñu jël atte bi jegele ko ak beneen atte loolu waaye loolu tey du du du waxtaan wi dama ci joxe misaal rek kon am na yeneen masadiru tashiyan yu fi nekk yoo xamante ne nii tamit bokkul ak yooyu waaye bu mu ci mën a doon ci yooyu yëpp mu ngi delluwaat ci mu ngi delluwaat ci ñaar yooyu euh, ñi nga xam ne ñoom ñoom la fi yenent bi sallallahu alayhi bàyyi woon nag ñoom bi ñu fi nekkee dañoo nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu alxuraan wàccee ah, ñu jàng ko luñ ci xamut lañuy dellu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu leeralal leen ko ñu dajale loolee lépp nag waaye ginnaaw bi ñoom it dañoo def seen góorgóorlu bopp di jéem a xam di jéem a gëstu bi yàlla bi ndax waxoon naa ci waxtaan wale ne yàlla dafa terale doomu aadama xel muy xalaat kon bu fekkee ne téere bi téere la boo xam ne dañ koo war di ko ubbi di ko liir di ci xalaat di ko settantal ngir dégg li ci li ci suñu borom subhanahu wax waaye ngir jéem koo jëfe loola tax na nag boroom xam-xam yi yaafu suñ ci waaye dañ caa góorlu bu baax a baax a baax sukkandiku ci loolu taalifa ay téere yu bare bare bare bari ngir gën koo leeral ngir jullit ñi mën cee gën a jariñu ci loolu ci lañ dem ba nga xamante ne nii euh, amal nañ ci ay xeeti xam-xam yu baree bari bari yoo xam ne lépp mu ngi sukkandiku ci alquran ak ci sunna Euh, bokk na ci ci missaal ci xeeti xam-xam yooyu nga xam ne xam-xami diine la mooy xeetu xam-xam bu ñuy wax al aqida muy pas-pas lépp loo xam ne mu ngi jëm ci wàllu lu nit war a gëm ak lu mu warta gëm te loolu lislaam leeral na ko ma joxe ci missaal rek tuuti lu mel ni gëm yàlla ak yenentam ak bunt ak ñeenti juróom benn ponki gëm yépp yowmal xiyaam loolu moom mooy moom mooy baas bi loolu ci buntu aqida lañ koy lañ koy jànge gëm àjjana ak sawara gëm mbugalum bàmmeel tamit ak laaj ba ak lu ci jëm yépp ci yowmal xiyaam gëm dogalu suñu borom yi loolu lépp dafay dugg ci buntu aqida lu mel ni weddi tamit bokkaale niñ ko bañee ak njabar loolu it ci buntu pas-pas lañ koy jàngale loolu kon misaal la ci loolu mooy point bu njëkk bi beneen bi am na xam-xam bu ñuy wax tafsirul quran muy firi alquran day dalay yombalal nga mën a xam alquran Euh, loolu nag borom xam-xam it bind nañ ci ay téere yu baree baree baree bari euh, yoo xam ni li ko tax a jóg lépp mooy baat boo xamut ci alxuraan nga dellu ca mu wax la baat booba la muy tekki yegg na sax ba ci dem ba wax la lu tax baat booba wàcc ak kañ la wàcc kañ la aay booba wàcc fan la wàcc ak lu mel noonu euh, ñu dem ba mu yàgg ñu génnee ci tafsirul quran xam-xam bu ñuy wax ulumul quran muy xam-xami alxuraan xam-xami alxuraan loolu li muy li muy wax mooy lu mel ni saar yi asbaabu nuzul yi muy sababu wàccu benn saar ndax alxuraan xam nañ ne ci ñaar fukki at ak ñett ci la wàcc diir boobu muy wàcc yépp da doon wàcc it di tontu ay laaj wala muy indi ay àtte euh, wala muy digle wala muy tere euh, moo tax nag borom xam-xam yi euh, yaatal ko lool ba dugg ci yu baree bari bari yoo xam ne pour wax ko fi day day xaw a euh, jël temps bari ndax ci ñi jàng xam nañ am na lu ñuy wax asbaabu nuzul am na lu ñuy wax al mubayyan ak al mu al al mutlax ak euh, al al al al mu al al wal aam al xaas euh, al mutashaabih al mubayyan ak ak yooyu yëpp am na ci ñu kon yaatal nañ ko bu baax a baax a baax. Euh, ngir alxuraan dafa nekk téere boo xam ne téere bu bu bu yéeme la boo xam ne kenn mënu ko jeexal ay ci njariñ yi nekk ci biir moo tax boroom xam-xam yi liñ ci liñ ci wax bari na ci wàllu googu euh, am na euh, xam-xam bu ñuy wax tamit al fiq fiq mooy ak dégg loolu lay tekki baat bi waaye liñ ci jublu mooy fexe ba li nga xam ne tere yàlla yi ak yi digleem ñu fexe ba mën koo leeralal ñi nga xam ne seen xam-xam soriwut bañ ba mu mën a yomb ci ñoom bañ mën koo bañ bañ bañ bañ bañ mën koo jëfee euh, mu muy cosaanu dégg dara fexe ba lii lan la ci suñu borom jublu waaw fiq nag moom moom it lu yaatu la dem na ba mu yàgg moom it ñu usul ko cëslaay utal ko utal ko cëslaay cëslaay boobu nag ay ay règle la yoo xam ne dafay dafay tënk dalay dimbali ci xam euh, li ñuy tuddee fiq muy matière boobu euh, muy usulul fiq euh, usulul fiq lu am solo la loo xamante nii euh, ay règle la yoo xam ne dalay tënkal ay njariñ yu baree bare te day dimbali nit ki ci bu bu fekkee ne mu ngi jàng na benn aaya alxuraan nu muy def ba dégg aaya bi euh, ba mën koo ba mën koo gën a jëfe ba mën koo gën a la mën cee génne tamit ay atte ndax lii ndigal la Euh, ndax lu war la wala luñ sopp la wala lu araamal la wala lu wala lu dagan la wala yu mel noonu loolu misaal la ci rek euh, misaal la ci ci ci wàllu googu kon loolu fiq mooy tax nga mën koo dégg hmm, fiq nag dafa bëri ay xeet ndax euh, am na lu ñuy tuddee fiqul ibadat muy fiq bi nga xam ne moo jëm ci wàllu jaamu yàlla yi lu mel ni julli ak woor ak joxe asaka ak aj ak ya jëm ñu koy tuddee al ibadatul mahda muy jaamu yàlla yi nga xam ne jaamu yàlla kese la dara raxu ca xëy na am na lu ca borom bi junj ci lu mu ay njëriñam waaye loolu euh, la ca doomu adama mën a xam la ndax loolu ab ab nattu la jaamu yàlla rek la sa diggante ak sa borom la donte am na ay njariñ yoo xam ne day dellu ci nit ki comme niñ ko waxee woon ci salaat ne inna salaat tanha anil fahshaai wal munkar ci weeru koor mu ne laalakum tattaquun ci zakat wax waxoon na ci ne da leen di setal euh, xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim in salawaataka sakunun lahum ci xaj waxoon na lan yanaal allaha luxumuha wala dimaauha walakin yanaalu taqwa minkum yooyu yëpp ci ci wàllu njariñ yi yooyu la waaye loolu mooy lañ ci mën a xam waaye borom xam-xam yi séddale nañ ko wax ci ne jaamu yàlla yi nga xamante ni day jëm ci wàllu sha'air nga xam ne ay ndigal la yoo xam ne suñu borom moo ñu ko gàll ñu koy war a joxe digganteem ak moom nga xam ne bañ nañ ko ba dañoo ko tuddee ponki lislaam muy ginnaaw boo waxee shahaada ba noppi dañ ne la ngaa war di julli juróomi yoon di woor weeru koor di joxe asaka boo ko amee di dem màkk benn yoon dem màkk benn yoon ci sa giirub dund loolu dañ koy tuddee am na ay matière matière boo xamante ni loolu moom lay gëstu ñu tuddee ko fiqul ibadat waaye ci fiqul ibadat moom it yemul foofu am na lu ñu tuddee fiqul muamalat muy dégg gi nga xam it moom it mu ngi jëm ci wàllu jëflante ndax comme ni mu ko waxee alxuraan dafa bàyyiwul dara maa farat naa fil kitaabi min shay alxuraan bàyyiwul dara lu jëm ci wàllu denc muy euh, am soxna wàllu vie familiale moo xam ci wàllu nekkin bi la wala wala wala am passé wala sax ba ci ndonn donn dono bu fi kenn jógee nuñ koy war a doonee yooyu yëpp euh, ci wàllu jëflante la loolu it dafa am xam-xam boo xam ne moom moo ciy jëm ci wàllu euh, trans transaction muy lu jëm ci wàllu jaay jënd ak lépp lu jëm ci wàllu xaalis ak économie ak jokkalante moo xam loué la moo xam jënd la moo xam lepp la moo xam ay contrat lu ñuy signé la loolu lépp lislaam wax na ci yooyu yëpp dafa am ay discipline ay xeeti yoo xam ne ci l'islam dañ koy dañ koy jàng mu am ay sp loo xam ne mën nga ci spécialisé euh, am na tamit lu ñu tuddee alxusumaat wal mooy xam nga nit ñi buñ nekkee faaw ñu am ay ay jafe-jafe ci seen biir lu mel ni xuloo ak ŋaayoo ak xiiroo ak xëccoonte wala lu wal jëm ci wàllu crime muy tooñante bu ñu demee ca cëppaandaw ga muy tribunalu lislaam am na lu lislaam wax tamit wax ci ay xeetu yoo xam ne ku ko def peen bañ la bañ bañ la war a teg lu mel ni ku ray nit wala nga sàcc wala nga wax wala nga naan sàngara wala loo xam ne lislaam daf koy bañ am na lum ca teg ci ay peen loolu it am na xam-xam boo xamante ni ci fiq la bokk ba léegi waaye buntu boppam la boo xam ne moom it dañ koy jàng euh, am na ci it lu mel ni ay peen yeneen peen yoo xam ne boo ko defee sa digganteeg sa borom am na lu la ca war lu mel ni euh, euh, dog weeru koor te tey ko wala nga giñ ba noppi te ne giñ nga nekkul dëgg wala wala yu mel noonu loolu lépp am na lu la ca war yooyu yëpp ay buntu la yoo xam ne ci xeeti xam-xam yi la bokk waaye mu ngi bokk ci li ñu tuddee fiq Euh, kon wax nañ lu jëm ci wàllu pas-pas wax ci tafsirul quran lu xam ne ngir dégg téereb yàlla bi wax nañ ci fiq loolu it mooy fexe ba xam atte yi atte yi nga xam ne moom moom la lislaam santaane waaye it am na beneen xeetu xam-xam bu ñuy wax ilmul xadis mooy xam-xamu xadis loolu day wax ci waxi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam comme wax nañ ne alxuraan beneen téere la moom waaye yenent bi sallallahu alayhi ay waxam moom it euh, dañ ko dajale ginnaawam bind ko tamit waaye comme waxi nit la te ku nekk mën naa nettali ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na dañoo demoon ba benn jamono nettali yu bari lool ku ñuy wax Abdullah ibnu Mubarak tàmbali lu ñuy wax sanat mooy bu ñuy nettalee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñ tëb rek ne yonent bi nee na waaye nañ wax ni déggee naa ci diw mu déggee ci diw mu déggee ci diw loolee nag boroom xam-xam yi topp ko ba mu yaatu lool ba mujj mën a xàmmee. liñ toxalee ci yonent bi sallallahu alayhi te mu nekk dëgg ak li nga xam ne moo nekkul dëgg ndax histoire bu bu bu gudd la pour mën a wax lan moo sabab loolu euh, ndax ay ay conflict politique amoon na ci jamono jooju ba euh, groupe bu ci nekk mënoon ngaa dem bay sosal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay hadis yu ñu wax ne moo ko wax loolu nag taxoon ne boroom xam-xam yi yàlla dimbali leen ñu euh, développé ay méthodes yoo xam ne dem nañ ba mën a xàmmee hadis bu bu wér ak hadis bu wérul tax alxuraan. moom la ci nekk lépp wér waaye xadis moom am na yi xadis yu wér ak yu wérut moo tax nag am na xam-xam boo xam ne ci loolu la jëm mat nan wa sanadan moo xam texte bi la moo xam tamit càllala gi la wala ñi nga xam ne ñoom ñoo nettali xadis bi am na ci xam-xam bu ñuy wax siira siira mooy dund ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ca ba mu ganee àdduna ba bi mu fi jógee li nga xam ne lépp moom la concerné ci doxalinam ci waxinam ci ay ay ay dund ay dundinam loolu am na matière bu koy gëstu Euh, borom xam-xam yi taarif nañ ci ay téere yu bare bare bare bare euh, du ma mën nag joxe ci ay exemple ndax bu mu ko tàmbalee ci discipline bu nekk ci ay tudd ay téere day xaw a jafe lool lool lool ndax waxtaan wi waxtaanu tënk la rek pour xam euh, yeggalee waxtaan wi ci xeeti xam-xam yi am koo xam ne nag yitteel na ko mën naa dem gëstu ji ko ndax internet mu ngi fi te lu yomb pour xam yooyu yëpp. beneen bi ci topp mooy am na lu ñu tuddee ak taarixul islam yi mooy histoire islaam bi lépp nga xam ne nag moo gën a yaatu moom loolu it eh, nga xam ne futuxaat li islam yi muy yaat ni l'islam tàmbalee ak fi mu jaar yëpp ak ak li am ci biir ak conflict yeeg yooyu yëpp dafay dugg ci biir loolu it beneen discipline la boo xam ne mënees na cee mënees na cee gëstu am na ay période tamit yu bëri yu bokkul ci xeeti xam-xam yi diine yi am na ci xam-xam bu am solo boo xamante ne ni mooy xam-xamu jikko loolu it boo boo xoolee dafa fees dell ci ci ci lislaam ndax lislaam digle la ak ak alxuraan digle la ak ak tere wàllu jikko dafa nekk loo xam ne comme yonent bi sallallahu dafa wax ne sax yàlla da ko yónni ngir mu ñëw mottali jikko yi kon nag jikko mooy li nga xam ne moom mooy nit ci biir xam-xam boobu ci la sax tasawuf euh, soqee ko euh, ak ak ak suluk li ñuy wax tasawuf suluk li nga xam ne mooy moom la tam mutasawwifa yi di wax mooy islaaxul xaal defar sa bopp defar sa biir defar sa defar defar sa biir ba nekk nit ku sell te loolu ci ci ci jikko la bokk am na xam-xam spécial boo xamante ni loolu it euh, dañ dañ ci dañ ci dañ ci dañ ci jàng dañ koy wax euh, loolu loolu xad euh, aflaha man zakkaha wa xad xam man dasaha loolu loolu lépp ci ci wàllu googu la jëm kon kon ci ci ci gàttal yooyu daal ay xeeti xam-xam la yoo xamante ni nii ci ci gàttal lool lool lool ci ci xam-xamu diine yi la bokk euh, boo gisee nag fànn yi yëpp nag ci wàllu diine euh, nekkul loo xam ne dafa nekk ci alxuraan ci ci tàq ci ci ci ci nii ñu indee façon discipline bi nii ndax lii euh, nit ci jamono yonent bi sallallahu alayhi amuñu woon xam-xam bu ñuy wax naan lii pas-pas la lii tafsir la lii fiq la lii xam-xamu jëflante la comme fiqul ibadat al muamalat amul woon xadis euh, discipline lu ñu tuddee mustalaxul xadis muy muy wala xam-xamu xadis ak yooyu yëpp loolu yëpp amul woon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam alxuraan it tudd ko fenn waaye bi ñu càmbaree alxuraan xool ko boroom xam-xam yi ñoo def seeni mm, effort bopp pour gën koo yombalal nit ñi ne a ah, alxuraan kat day wax ci lii day wax ci lii di wax ci lii noonu la ñu indee ay matières yu bari kon loolu e, nit ñi ñoo ko sos ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam bu doon wax dañ naan bidaa bu baax la boo xamante ni yombalal na nit ñi ngir xam façon discipline yi nga xam ne am na yëpp ci ci ci lislaam te muy nag liggéey bu am solo boo xam ne war nañ koo sante boroom xam-xam yi nga xam ne ñoom ñoo jiitu woon am na beneen taqsim muy beneen xaaj boo xam ne xaaj nañ ko diine muy ñetti xaaj yi nga xam ne moom lañ xam waaye ñetti xaaj yooyu it boo ko delloo da nga koy daal di gis moom ci alquran muy alquran day wax ci imaan wax ci islaam wax ci ihsaan xadis tamit indi na ko mooy xadisu jibril ba ba ba nga xam ne Omar moo ko nettali Omar ibnul Xataab bi bi yonent bi sallallahu alayhi ba Jibril ñëwee sukk ay bëti oomam laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wax ma ci imaan mu wax ko lam ko wax mu ne ko wax ma ko wa wax ma lan mooy lislaam wax ko lam ko wax mu ne ko wax ma lan mooy ihsaan moo tax boroom xam-xam yi xaaj lislaam ñetti xaaj muy xaaj diiney lislaam ñetti xaaj muy al imaan wal islaamu wal ihsaan man nag sama dégginu bopp damaa jàpp ne lii du ay xaaj waaye benn benn lu ñuy tuddee ay manazil la manazil mooy ay wàccuwaay la wala ay degere la ci ci ci wàllu diine ci sa diggante ak sa borom noonu noonu moom laa ko jàppe euh, kon loolu moom moo ci mooy mooy mooy xaaj yi nga xamante ne nii moom moo jëm ci wàllu diine euh, ma ñëw nag ci euh, xaaj bi nga xam ne moo jëm ci xam-xamu àdduna loolu lii dama ko gàttal lool mënoon mënoon naa gën a guddi lii waaye euh, wax dëgg yàlla bëgguñoo sonal ñi nga xam ne ñooy déglu euh, ndax waxtu yi dafa xaw a xat lool euh, daanaka mm, boo waxee lu mat waxtu rek daanaka ngir weesu ko day gën a day day xaw a gudd ci ci jamono ji ci ñu bare bare bari beneen xaaj bi nga xam ne moo jëm ci wàllu xam-xamu àdduna li ma ci jublu mooy àdduna ji ñu nekk lépp lu ñu wër lu fi nekk lu ñuy gis ak lu luñ dul gis luñ mën a teg loxo ak luñ mënta teg loxo loolu laa ci jublu euh, ci ci ci ci ci monde bi ñu nekk ndax ci comme ci kaw suuf lañ nekk lépp lu nekk ci kaw suuf euh, jàpp naa ne yàlla daf ko bind ngir ngir ngir ñun euh, ngir ñu mën koo jariñoo loolu nag dafa am cëslaay ci alxuraan ndax yàlla wax na ci alxuraan ne huwa anshaakum min al ardi moom moo leen bind ci suuf si wastaamarakum fiiha ba noppi wàcc leen fi maanaam teg leen fi ngir ngeen dundal suuf si ngir ngeen tabax ko ngir ngeen nekk kon euh, kër yiñ fiy def oto euh, yoon yiñ fiy def euh, lépp luñ fiy def ngir ngir ku gis àdduna bi gis nii mu mel da nga xam ne ca tàmbali ba melut woon nii kon li tax mu mel nii mooy ñun doomu aadama yi ñun ñoo ko melal nii waaye kàttan googu ñu yàlla jox ba noppi tàggatal ñu univers bi muy fi ñu nekk tàggatal ñu lépp ngir ñu mën koo jëfandikoo ba nekkin wiñ fi nekk mën a jàppandi ba li ñu fi indi it ñu man koo ñu ñu ñu ñu ñu mën koo def loolu moom mooy mooy li ñu tuddee ak taamiir muy muy muy wal wal wal wal wal istixlaaf te nekkin wi moom pour nekk fi euh, niñ fi mën a nekkee ni nga xam mënta mënta nekk te yow li la wër ci boppam étudier woo ko ba jàng ko ba ba mën koo jëfandikoo euh, kon njàng dafa am solo lool pour xam li nga xam ne moom nga am ci ay moyens yi nekk ci kaw suuf nga mën ko utiliser utiliser bu jaar yoon mooy il faut nga il nga jàng il faut nga jàng loolu jàng ni ngay nan ngay dundeek rab yi nan nga da nga jàng noo xamante ne nii ci biir euh, boo feebaree di nga faju da nga jàng ba xam gàncax gi lool lor ak gi lay jay ak gi nga xam ne moom moo lay jëriñ loo xam ne boo ko lekkee faatu nga xam ne lii tooke la nga nga nga nga xàmmee euh, xàmmee garab yi xàmmee dëkk yi nga xam ne bu la jamee mën nga caa faatu ak yooyu yëpp expérience la boo xam ne loolu lépp ci am njàng la bokk euh, loolu liñ ci mën a wax bari na waaye dama ci dama dama ciy joxe misaal rek boo seddee ni ngay def ba mën a euh, euh, wattu sa bopp ci ab sedd noo bu tàngee nooy mën a def ba am ay yëre yoo xam ne moom ngay sol ak yooyu yëpp ak ak kër yi façon kër yi nga xam ne yaa koy defar boo bëggee déplacé wu yan moyen déplacement moom ngay wut yooyu yëpp loo mën a jàngale loo étudier la te gis nga àdduna bi toll na foo xamante ni dem nañ ba ci côté communication gis nga fiñ ci toll côté déplacement gis nga fiñ ci loolu te loolu li ñu ko may mooy environnement bi ñu nekk li fi yàlla def ñu étudier ko ba xam naka lañ koy euh, utiliser waaye du ñu yem foofu rek waaye développer ko tamit loolu kon xam rek moom moo ko ko mën a indi Euh, bu ñu xoolee ci alxuraan dañuy gis ne dafa fees dell ak euh, ak ay ay ay ay ay ay ay ay aaya alxuraan yoo xamante ni dafay wax ci euh, ci univers bi ndax lépp loo xamante ni comme ni ma ko waxee mu ngi fi ci kaw suuf yàlla moo ko tàggatal doomu doomu aadama te loolu dafa dafa nekk ci alxuraan mën naa cee indi misaal rek ndax bañ guddal sunu borom subhanahu wa mu ngi wax ne e, mas ci ci ci ci misaal rek di wax ne yunbitu lakum bihi zara wa zaytuna wa naxiila wal anab wa min kulli thamarat inna fi zalika la ayatan li xawmin yatafakkarun booy xool loolu e, lii rek aay bi mu ngi jëm ci wàllu xam-xam bu wax xam-xamu gàncax rek ndax suñu borom di wax ne moom mooy ki nga xamante ne nii moo leen di saxalal gàncax am yum ci tudd muy olive ak ay tàndarma ak ay ay raisin yooyu yëpp euh, moo koy saxal ci kaw suuf si mu ne loolu nag keemaan la ci ci xeet woo xamante ne nii danañu danañ utiliser seen xel di xalaat boo gisee alxuraan di wax ay gàncax di wax taw bi wàcc ak lii sax ak yu mel noonu lépp dafa bëgg nit ñi di utiliser seen xel di xalaat Euh, di di di di di di di di xalaat loolu lépp ay façon ay façon xam-xam la yoo xamante ne ni lii mooy xeetu mooy xam-xam bu jëm ci wàllu jàng mbay defe naa ni loolu lañ ci lañ ci mën a jàngi parce que ay yi mën nga ko jàng nii mais ci ginnaaw aaya bi booy xool am na lu ci nekk loo xam ne xel a koy mottali il faut nga nga jàng mbay moo tax dañ koy jàng te réew yu développé yi mën a sukkandiku ci seen bopp dem nañ ba mbay discipline la boo xamante ne nii dañu dañ koy jàng te te lu lu am solo loo xam ne boo ko jàngi tey ki ko jàng di ko def du bokkul ak ki nga xamante ne nii euh, day ñëw rek jëmbat noonu wala wala wala wala wala wala ji euh, boo xoolee sunu borom subhanahu wa taala mu ngi taw wax tamit ci feneen beneen aaya wa la lakum layla wan nahaara wa shamsa wal xamar wan nujuba musaxaraatun bi loolu mooy lépp lu fi nekk rek ci kaw suuf ci kaw univers bi moo xam jant bi la moo xam weer bi la moo xam biddiw yi la moo xam guddeeg bëccëg lépp suñu borom ndax ñu koo tàggatal da tàggatal ci kàttanam tàggatal ñu ko inna fi zalika la ayatin li xaw qawmi yanqilun loolu ngir ñi am xel man man man man man di ci xalaat kon boo gisee suñu borom di tudd loolu yëpp muy muy xam-xamu astronomie ak astrologie ak yu lépp loo xam ne la xam lu jëm ci wàllu kaw la ak biddiw loolu suñu baram daf koy tudd ci alxuraan te lim ci jublu mooy kon ñu utiliser sunu xel def ci ay étude ba gis nga léegi tubaab yi yooyu yëpp dafa mel tubaab yi alxuraan lañ jël ko traduire ci seen dund ndax euh, dem ci kaw asamaan dem ci weer weeg yooyu lu alxuraan junj la loo xamante ne nii euh, ci ay ci ay ay loo xam ne lu lu war a mën a nekk la euh, te te buñ ci see incha allah ci waxtaan woowu da nga gis ne. Euh, borom xam yi borom borom xam yi ci ci ci ci ci lislaam laay wax ci cadre lislaam ci al asru zahabi li ñuy the euh, the golden age li anglais yi di wax the golden age of the islam mooy jamono yi nga xamante ni lislaam mu ngi ci digg dooleem nga xam ne boroom xam-xam yi jamono booba lislaam lañ di dund di ko étudier di tamit di di yamuñu ci théorie mais dañ daan pratiquer euh, fiñ ci toll woon ñoom ci utiliser science Euh, nga xam ne tey li am ci li nekk ci loxo yi européens yi wala occident yi yëpp ci loxol jullit ñi la nekkoon loola téere bi moo leen ko may muy al al alxuraan ji euh, moo tax ci ci wàllu euh, misaal laa doon joxe rek tuuti ci wàllu xam-xamu àdduna li ci alxuraan wax ak ni nga xam noonu la suñu borom subhanahu wa taala tàggalatee ñu àdduna bi ba lépp nekk ci sunuy loxo ñu ñu mën koo xam gis nga ba léegi dafay dafa dafay wax ci ci bo boo gisee Euh, joxe naa misaal ci ci wàllu xam-xamu biddiw yi ak ak ak ak bi joxe xam-xam euh, joxe benn verse ci wàllu xam-xamu mbay waaye tamit gis nga boo ñëwaatee lépp lépp lépp lépp lépp da ko wax ci alxuraan da ko da ko wax ci alxuraan booy xool ci xam-xamu euh, rab yi tamit dama la ciy jox misaal rek tey lu mel ni yàmb tey ni ni mu ni mu ko jëlee ak lim ci wax yaxruju min butunihi sharabun muxtalifun alwaanuhu fihi shifaun linnaas inna fi zalika la ayatin li xawmin yatafakkarun boo gisee baat yi yëpp day ñëwaat yanqiluun yatafakkarun yatafakkarun hmm, yooyu yëpp euh, mooy que il faut que ñu utiliser suñu xel maa ngi ko doon wax wax ci waxtaan wala ñu wa waxtaan wala wee weesu ñun dañuy jàng aaya rek aaya alxuraan ngir ngir ngir ngir barkeelu ak ak ak barke te loolu lu am solo la wala ngir sawaab euh, comme ni ko yent bi sallallahu waxee loolu ayut waaye njëriñu njëriñu njëriñu alxuraan fii ci àdduna bi ginnaaw jub Euh, mooy xam nu ñuy utiliser mooy yi nekk fii ci kaw suuf ba mën koo utiliser ba ba am benn yenn certain développement yi kon képp kuy wax ne lislaam du du du du du diine joo xam ne diine développe développement la kooku xamul xamul l'islam dëgg-dëgg waaye xamul téere bi yàlla bi dëgg ndax maa farat naa fi alkitaab bi min sey mooy bàyyiwuñu dara dara dara dara ci téere bi téere bi lépp lépp la indi te waaye nag téere bi téere ñii xalaat la ak ñii am xam-xam ak ñi nga xam dañuy utiliser seen xel kon du du pour toog nii rek di ko jàng di di di barkeelu lii daal bëggoon naa cee ñu ñi may déglu ñëpp ñëpp ñëpp ñu ñu ñu jéem a def effort jéem a jéem a liiraat alxuraan beneen beneen beneen beneen façon liir di ko settantal comme ni mu ni mu ko waxee afala yatadabbaruna alxuraan am ala xulubin axfaluha Euh, booy gisee ci ci ci ci lu bare bare bare da daf koy wax ci daf koy wax afala yanzuruna ilal ibili kayfa xuliqat yi yëpp da koy wax euh, loolu lépp mu ngi jëm ci wàllu ay ay ay rab te gis nga tubaab yi boo xoolee façon rab yëpp daanaka dañ leen di observer dañuy dem ci àll bi di fi def ay weer ay at teg seeni caméra di étudier rab wu nekk ñu di la étudier di xool say jikko ak ak ak ak comportement ak yooyu yëpp loolu li loolu dafay joxe xam-xam bu bare bare bare euh, boo xoolee tamit ci wàllu lu mel ni xeer da loolu damay joxe ay misaal rek joxe na euh, misaal ci wàllu euh, lu lu mel ni euh, al ajraamu samawiya joxe ci gàncax gi joxe ci rab yi waaye tamit ba ci xeer bi xeer yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf tey li ci suñu borom wax ci alxuraan bari na lool mën naa cee jël lu lu ay ay misaal lu mel ni ci suratu naba amma yatasaaluuna an innaba il azim alladi hum fihi muxtalifuun kalla sa yaalamuun summa kalla sa yaalamuun alam najalil arda mihaadan wal jibaala awtaada gis nga ko wal jibaada awtaada ci wàllu xeer lim ci wax wa minal jibaali juddadun biidun wa xumrun muxtalifan alwaanuha wa garaabi bu suud ci suratul fatir gis nga kon boo ko toppee da ngay gis ne lu baree baree baree bare Euh, daf ko ci daf ko ci wax te loolu lépp daf ñuy daf ñuy wax ne da ngeen di seetlu léeg day utiliser sax baat bi nga xamante ni baatu bu ruya muy ru'yatu ta'ammul wal wal mulaaxasa gis nga aay bi ko jiitu aay mu ngi tàmbalee ci alam tara anna allaha anzala min as-samaa'i maa'an fa akhrajna bihi mu mukhtalifun alwaanuha wa min aljibali judadun biidun wa humrun mukhtalifun alwaanuha wa gharabiibu suud wa min annaasi waddawaabi wal an'aami mukhtalifun alwaanuha kazalika innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama gis nga li nga xam ne moom la mujjee aay bi ñun aay bi dañ koy dañ koy utiliser lu bari ci ci euh, ne xam-xam dafay joxe ak ragal yàlla waaye booy xool aay bi li mu tudd lépp laatu mu yegg si foofu moo lay wanal ne tamit ñi xam yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg mën nga jaare xam yàlla ci ci ci ci ci xam li li nga li nga ndax euh, ci xam euh, xam-xam àdduna xam-xam li la war xam science science dina dimbali nit ki pour mu mën a yegg ci ci li ñu tuddee al al al alxashiya muy martabatul xashiya muy muy muy muy ragal yàlla kon loolu loolu loolu loolu dafa am solo loolool kon njëriñu njëriñu xam-xamu àdduna bi boo gisee ay li ñu tuddee al ayatul kawniya muy muy wàllu li nga xam ne moom moom la suñu borom bind ci kaw euh, ci ci àdduna bi te di ñu ko wax dëkk di ñu ko wax te di ko jeexalee toujours baatub xanaa du ngeen xellu xanaa du ngeen xalaat xanaa du ngeen seetantal lim ci jublu mooy que ñu mën a trouver xam ñu xam yàlla ci mbindeefam yi ndax loolu dafay dimbali euh, dafa yuusili ko ila ila ila ila ila loolu day day dimbali nit ki ci xam sunu su sunu borom xam-xam bi nag léeg-léeg day nekk sax farata ci ñenn ñi moo tax mën nañ ko tuddee fardu kifaaya euh, waaye léeg-léeg mën na doon fa mën na doon ab farata aynu boo xamante ne nii nit ki pour que parce que pour mu am tawxiid il faut mu mu xam kàttanu suñu borom euh, loolu suñu borom daf ñu koy wan loolu am moo tax dafa am at laazum bu baax a baax a baax a baax euh, ak ak ak xam-xamu diine ndax euh, noonu mu ko waxee woon ne dafa am ay ayatun maqru'a yi nga xam ne dañ koy jàng muy alxuraan bi waaye ci biir loolu it yàlla daf ñuy jàngal nañu na ngeen xool al ayatul kawniya tamit bu ngeen di jàng alxuraan na ngeen di bàyyi xel tamit keemtaan yi nga xam ne moo leen wër wax ci wax wax ci taw bi muy al al wax ci al al al matar muy muy muy taw euh, wa anzalna min samaa'i ma'an wax ci albarq wax ci arraad ba jël ko sax tuddee ko ay ay ay ay suur melax yeeg dënnu yeeg taw beeg gàncax gi saxak ak euh, yamb ak yoo ak lépp euh, lépp lépp daal sunu sunu borom wax ci wax ci wa wax ci wax ci gileem rab yi wax ci ankabuut ak ak yu bëree bari boo ko toppee dafay dafay bëri mais loolu lépp lu sunu borom lim ci jublu mooy loolu day tax yusilika ila maarifati euh, tawxidu rububiya al mutadaminatu li tawxidul uluhiya pour xam kattanu sunu borom ak ak ak ak ak ak ci ci ci ci bind ne moom moom lépp te boo ko nangulee ne mooy ki nga xam ne moom mooy bind alaa lahul lahul wal amr mooy ki nga xam ne moom al mutafaridu bil bil bil xalaq wal musawiru al baariu euh, al euh, kon kon ki nga xam ne moom mooy bind loolu lépp li tax mu di ko wax mooy reconnaître euh, nguuram gi ci ne moom moom moom moom mooy ki nga xam ne mooy seule boo ko nangulee loolu nag loolu yeta damunu tawxidul uluhiya kon ki bind di moom di di sañ di def di dindi kooka lañ moom lañ war a nangul ak yàllaam euh, mooy taw tawxidul uluhiya mooy wéetal ko ci ne amul kenn kuy bind boo ko nangulee na amul kenn kuy bind wala kuy rey di dekkile war nga koo nangul tamit te amul kenn ku ñu war a jaamu kudul moom Euh, loolu lépp kon dafay dafay daal di dafay daal di duggaat ci biir kon aaya boobu ñu wax léegi ne euh, alam tara an allaha anzala min as-samaa'i ma'an fa axraja bihi min as-samarati euh, muxtali fa axraja bihi min fa axrajna bihi samaratin muxtalifun alwanuha wa min al jibaabi wa min al jibaali judadun baydun wa xumurun muxtalifun alwanuha ba aaya ba jeex mu ngi ko mu ngi ko jeexalee ci innama yaxsha allah min ibadihi al ulama loolu pour pour am xashiya il faut la budda min min min istixdaar tawhidul rububiya ak tawhidul uluhiya bi nga xamante ni nii moom moo nekk ci biir ci biir ci biir aaya boobu boo seetloo ne amul kenn kuy bind ku dul yàlla moom rek moo lawul xudra wal wal wal iraada fi ijaadi hazil umur moom boo xamee ne amul kenn ku man lii ku ku man lii ba kon kon kon war nga koo nangul jaamu gi kon kon kon xase boobu pour nga am ko il nga il faut nga am yenn mulaaxasa yi di seetlu yi ci ci ayatul kawniya yi ba mën a yegg ci ci résultat bi loolu loolu loolu benn misaal la ci boo xoolee tamit ci ci suratul baqara euh, ci suratul baqara gis nga ko euh, da ciy wax lu bare bare bari tamit ci ci wàllu googu euh, ci ci ci pour pour pour am surat pour pour pour yegg ci tawxidul rububiya ak ak ak taw ak tawxidul uluhiya Euh, ni ni ni ki noonu tamit boo jëlee euh, euh, lu mel ni juso amay saaru amay te saalun bi nga xam ne tey mu ngi wax ci wàllu an li ñu tudd saar bi sax mu ngi tudd suratu naba waaye di wax ci yowmal xiyaam mm, pour nga gëm yowmal xiyaam sax gis nga ko daf ko boole ak ak ak ak ak al ayatul kawniya muy amma yatasaaluna ani nabil azim allazi hum fihi muxtalifun kalla sa ya'lamun summa kalla sa ya'lamun daal di tàmbali alam naj'alil arda mihadan wal jibaala awtaadan lu tax mu ciy tudd ay xeer ak yooyu yëpp hmm? wal jibaala awtaadan wa xalaqnaakum azwaaja wa ja'alnaa nawmakum subaatan wa ja'alnaa layla libaasa wa ja'alnaa nahaara ma'ashan yooyu muy indi yëpp ngir lenn la mooy isbaatul ba's wal xisaab wal jannatu wan naar loolu loolu rek moom moom la lay indil kon li mu bëgg a junj foofu mooy euh, xam-xamu àddina yi euh, di seetlu li ñu wër di ko jàng ngir xam ko danañu dimbali sax ci xam kàttanu sunu borom ak man koo gën a jaamu kon loolu dafa nekk lu lu am solo loo xamante ne nii jullit bi ëpp na ëpp ëpp naa sàggane boo gisee moo tax al alxuraan euh, ci ci siixa yu bare bare bare la koy indi léeg-léeg daf koy daf koy digle léeg-léeg mu indi lu mel ni xul siiru Euh, xul xul siiru fil ardi kayfa bada al xalq lu mel ni loolu dox euh, leen ngeen xool ngeen xool ngeen xool naka la dund gi tàmbalee euh, kon ko ci ba ci ba ci tàmbali tàmbali wàllu créature bi sax sunu borom da cee da cee wax lu bare bare bare am na ay bu bu am solo bu nekk ci suutul anbiya fi muy waxee ne awalam yara allazina kafaru anna samawati wal ardi kanata ratxan fa fataxnaahuma wa jaalna min al maai kulla cheyin xay afala yuminuun aay boobu dafa dafa dafa nekk ay bu ma neex lool lool ndax li mu li mu li mu boole ndax foofu mu ngi joqar bi ñi nga xam ne gëmuñu yàlla mu ne xanaa ñi nga xam ne gëmu gëmuñu yàlla wala ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla xanaa xamuñ ne asamaan ak suuf muy univers bi yëpp yëpp yëpp ab dànk la woon benn benn benn dànk la woon nee na ma ma daal di koy ma daal di koy tàqale da def ne woon ñum lépp ànd noonu nee na ma daal di koy tasaare tàqale ko daal di créer lépp luy dund nee ma daal di koy créer ci ndox ma ma ma daal di koy ma daal di koy jëlee ci ndox te loolu science daf ko daf ko kii ñëpp xam nañ loolu euh, ñuy wax euh, bi bi bi wàllu ex explosion boobu muy big big bang bi loolu defe naa ne moom lay tegtale donte sax léeg-léeg dañuy jël science di kii waaye lu lu lu mën a nekk la ndax. Euh, Euh, xel mu rafet moom toujours dafay déggoo euh, ak euh, naqlu saxih comme liñ ko waxee al al al al naqlu saxih daa iman yatawaafaq ma al naqlu saxih aay boobu dafa dafa yéeme nga xam ne foofu wax na ci bidaayatul xalq comme li li li suñu borom wax léegi ne xul siiru fil ardi fanzuru kayfa bada alxalq kon baat yi nga xam ne da koy utiliser ci alxuraan lu bare bare bare muy asayru wa nazar wa tadabbur wa tafakkur euh, wa euh, ak ak ak ruya alam taraw mm-hmm. yooyu yëpp euh, da da koy da koy utiliser gis nga ko allazina yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ard rabbana ma xalaqta hada batila ak yooyu yëpp daf koy daf koy utiliser kon loolu dafay soññe rek ñu ñu bàyyi xel ci al ayatul kawniya muy euh, kéemtaan yi nga xam ne mooy kéemtaan univers bi yi nga xam ne moo ñu moo moom moom moo ñu wër comme kon xam-xam yi xeeti xam-xam yi nga xam ne ci wàllu àdduna la jëm ngir mën a xam dund gi euh, fi ñu nekk euh, nuñ koy utiliser bari na ci borom xam-xam bind na ci lu baree bari bari ma joxe ci ñeenti misaal rek ndax kii kii baa ngi bëgg guddi. bu njëkk bi mooy jëlal lu mel ni xam-xam euh, xam-xam bi jëm ci lépp luy dund lépp luy dund mooy ilmul xayaat ilmul xayaat lépp lépp luy dund comme nga tàmbalee ci nit doomu aadama rek doomu aadama tey boo ko jëlee rek xeeti yi xam-xam yi nekk ci doomu aadama tey ëpp na daanaka mën nga ne ëpp na juróomi téeméeri xeeti yi xam-xam yoo xam ne ci lépp ci doomu aadama la jëm mën naa cee sule souligner ñaar muy ilmul ijtimaa tey ak ilmu tibb tey boo ko jëlee rek xam-xamu faj ak xam-xamu sociologie hmm? Hmm. Euh, ak psychologie ak yooyu yëpp mën nga ko cee dëxëñ ci biir te boo ko toppee da nga génne te ilmu tibb ci suufam dong ilmu tibb tey boo ko jëlee ilmu tibb li insaan tey mën nga cee génne wax daanaka lu mati ñetti téeméeri spéciali euh, spécialisé yoo xamante ne nii ci ci suuf ndax xam nga euh, wàllu faj tey nit am na ñoo xam ne bëñ bëñ la ñuy faj ñu koy tuddee dentiste am na ñoo xam ne. Euh, yi ay yëg-yëg sentiment doomu aadama la ak ak yëg-yëgam muy muy psychologie euh, am na yoo ñoo xamante ni ay kinésiste lañ li lépp lu jëm ci wàllu yax am na ñoo xam ne ay ay morphologie la ñuy lañ lañ lañ lañ lañ jàng am na ñoo xam ne ay ay dermatologie lañ jàng yooyu yëpp boo ko xoolee ay xeeti xam-xam la looy gën di dem tey mën nga cey génne lu mat trois 300 yoo xamante ni ci doomu aadama kese kese la jëm boo jëlee ilmul xayawaan ay ay vétérinaire yooyu yëpp da nga ko ciy gis eh, nga jël ilmul nabaat tamit même chose hmm? eh, ilmul jibaal kon kon ilmul xayaat lu am la ilmul jamaat lu am la muy muy yi nga xam ne dunduñu eh, lu mel ni alfalak al ajraamu samawiya yooyu mën nga koo jël lu mel ni raad wal barq tey boo ko jëlee nga jël al ahjar al zalazil wal barakin muy ay tremblement de terre yeeg xeer yi ak fonction ci àdduna bi gis nga li ci Einstein wax euh, te loolu mu déggook alxuraan lool doonte alxuraan moo ko jiitu fuuf mm, gis gis gis gis nga ko loolu euh, alxuraan li mu li mu wax ci importance su xeer yi nga xam ne daf koo samp ngir suuf si bañ bañ a an tamida bikum wa anhaaran hmm, noonu ma ko waxee léegi loolu euh, loolu loolu loolu dafa yéeme gis nga way way way wa jaal naa fil fil ardi rawaasiya an tamida bihim wa jacalna fiha fijajan subulan laallahum yahtaduun wa jacalna samaa saqfan mahfuuzan wa hum an ayaatiha muridun wa huwa allazi xalaqa al layla wa nahaara wa shamsa wal xamara kullun fi falakin yasbaxuun lii lii sëñ bi dafa dafa yéeme lool dafa dafa yéeme lool man man daal bëgg naa bëgg naa nit ñi ñu jàngaat alxuraan te di ko seetantal yàlla xam na ne bu maanaam neex neex gi nga xam ne neex na ko ci dégg ko ak ak ak comprendre ko ak xam ko moo moo tax damay faral di wax ne léeg-léeg euh, bu bu bu fekkoon ne mën naa delluwaat ba ba mënaan amaat juróom juróomi at kon kon la ma la ma rëccoon ci am njàng yëpp dinaa ko dabaatal waaye xëyaatal damay rëccu fan yi fan yi ay ay bis wala ay weer yoo xam ne toog naa ko te yëruma wala yokkuwuma ci xam-xam Euh, te te looy looy gën di xam di gën a xam ne xamoo waaye looy gën di jëm mag tamit ci ku yàlla defal tawfiq ngay gën di réccu ci ci ci ci ci lan moo tax jàngiwoo woo lan moo tax jàngi woo wala waxtu yi nga xam ne mu ngi dem te te utiliser woo ko ci yokk ci xam-xam loolu nag day dafay suñu borom moom mooy dimbali doomu aadama ci ci mën a xam kii loolu sëñ Sam Mbaye doon wax rek ci ne ñaar ngi nii ñoo xam ne duñu duñu duñu suur ci àdduna defe naa ne bu bu nekkul xadis xëy na wax ju jubla kon muy sàkkukatu àdduna ak sàkkukatu borom xam-xam duñu duñu doyal rek ndax lu ñuy lu ñuy gën a dem di ko gën a mar di ko di ko di ko di ko di ko di ko di ko gën a mar kon xeeti xam-xam yi kon bari nañ eh, gis nga boo jëlee ci kon xam-xamu lépp luy dund nga jël xam-xamu yi nga xam ne dunduñu la ca nekk ci suufam kenn kenn xamu ko nga jëlaat lu mel ni physique li nga xamante ne nii Euh, ay ay ay ay chimie mm, nga xam ne képp ku bëgg a doon tey ingénieur wala nga wala wala wala wala wala nga mën a defar ñiy defar ay avion yi naaw ak di defar ay bateau ñuy daw ci ndox meek wala ñuy tabax ay ay euh, ay immeuble yu kaweek yooyu yëpp ay xam-xam la yoo xam ne il faut nga mën a wala ay explosion defar arme ak ak yooyu yëpp loolu il faut nga xam-xamu chimique ak xam-xamu kimia li ñu tuddee riyaadiyaat wala kimia Euh, yooyu mënta ñàkk te yooyu jullit ñi macha allah dañ ci avancé woon lool lool lool lool euh, kon daal yëpp ay ay xeeti xam-xam la ci xam-xamu àdduna rek yoo xam ne mën na jëriñ jullit ñi te lépp nag ñu mën ko jëlee ci alxuraan wax dëgg yàlla li ci des nag moom mooy ay euh, xam-xamu pratique la mooy al ilmu tatbiqi wa tajribi ndax li yàlla def ci al ci ci àdduna bi boo koy jël di essayer di xool di boole di teg noonu ci la ci la science di génne ci la lépp di génnee kon kon loolu lu war a mën a nekk la war nañ ci mën a góor góor lu ñun jullit ñi bu baax a baax ci dellu ci téere bi ci di ko liiraat di ko di ko xamaat di ko di ko gëstu di ko càmbar te di ko settantal ndax loolu dina dina ñu mën a dimbali bu baax a baax a baax euh, waxtaan wi nag jeexul inna lil hadis baqiya incha allah ndax euh, xaaj bu njëkk bi rek laa doon waxtaan ni mooy xaaj xam-xam ci xam-xamu diine ak xam-xamu àdduna te xam-xamu àdduna bi it euh, sax des na waaye waxtu wi dañoo xaw a dab euh, ndax lu jëm ci wàllu métier tamit dafa dafa am solo loolu dinaa dinaa ko yeggale incha allahu taala ci waxtaan wii di ñëw buñ ko fekkee jàmm mooy wàllu wàllu wàllu métier man defe naa ne nit ku nekk da ngaa war a am métier ama xam-xamu diine nag di ci waar nekk loolu métier la waaye nag euh, warta warta warta yam foofu nit dafa war a mën a jàng loo xam ne loolu lay def ci ay loxo waaye wax kese nii euh, rek rek rek defe naa ne du du métier yor békk wala fooy wala yor ay livre dong dong dong yam ci nit dafa war a am lu mu jàng ci loxoom loo xam ne dana ko mën a def te loolu yenent yi gis nga ko ay yenent lañ woon bu dee jàng jàngale loolu moo doon seen liggéey yàlla daf leen baaxee woon ku ci nekk am métier moo xam ne say mbir bopp daan nga ko mën a defal ñii ay tëgg lañu woon ñii ay menuisier lañu woon ñii ay sàmm lañu woon ñii leneen ak leneen donte ay maraaxil la yoo xam ne dañ ca daan jaar kon ab borom xam-xam daal dafa war a mën a am tamit yeneen ay bagage yoo xamante ne nii moom war na koo jàng ci biir ak dundam tey di utiliser ci suñu waxtu di ci yokk saa su nekk di ci di ci yokk te te xam-xam yi dañoo dañoo bëri comme ni mu ko waxee moo tax lu ci nekk war nga cee mën a jàng donte te léegi jamono ji may nañu ñuy def ay formation ay professionnel mooy dem spécialisé ci dara yenn prof yenn profession yi mën nga koo def ci ay six mois yenn yi un an yenn nangam ak nangam mën nga jàng peinture mën nga jàng menuisier mën nga jàng soudé mën nga jàng leneen lu mu kii te nit ki waroo waroo waroo xeeb dara tamit waroo waroo xeeb dara ci ci ci ci wàllu ci wàllu liggéey mën a mën a am liggéey daal loolu baax na mooy am métier moo xam da ngay xëy di ko def muy mën a mën a def dara euh, jàng mbay gis nga ko yooyu yëpp lu am solo la kon euh, ñu ngi bëgg a guddal ci waxtaan wi gudd na sax ba noppi waaye kon ñu ngi yamale fii rek waxtaan wi incha allahu taala euh, dinañ ko yeggali ci beneen jamono incha allah balaa balaa yàgg pour mën a continuer wax ci yeneen xeeti xam-xam yi nga xam ne des na euh, wasalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ñaan yàlla mu may ñu dégg ak topp te may ñu tamit ñu tasee ngërëmam ci waxtaan wi euh, yàlla na nekk loo xam ne njariñ la yàlla na loo xam ne nekk day yee tamit nit ñi ci ñu delluwaat ci xam-xam euh, gëstu jiwaat bu baax baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.